<laughs> parce que def nañ euh, une heure primaire yi c'est mon idée ah man maa ko dégagé. dans mm-hmm. une interview c'est pas une question qui a été discutée ci biir benn sama idée la. Mm-hmm. maa ko génne donc euh, voilà li ci des mooy euh, dialogue. Mm-hmm. maanaam waxtaan. wax naa ko sàng ci ci sama biir wax wax bu fekkee nit ki dane nan waxtaan mais ko waaw mais ci yan condition te yaakaar naa ku fekkee ne da waxtaan parce que réew mi en tout cas ci réew mi noo bokk dëkk ak ci réew mi ñun ñëpp ñoo fi bokk dëkk ku ne gis na ne problème am na te problème boobu ñu ko réglé man mën naa yokk te fa muy jëm kenn xamul xamul ndax euh, dégg ba ba li may wax. parce que réew yi tàkk yépp ci lu mel nii moo leen taal bu ñu nee Sénégal ay ñaan ak ñaan am na mais nag ñaan aussi il faut yàlla yàlla bay sa tool. nañu ñaan aussi di dox ak wax lu indi jàmm bu pensé que Macky Sall bu fekkee ne dialogue dafa war a am ñi ma ko seqal ne ko nangam ak nangam mooy am tax ñu wax nga yaakaar ne bu bëggee dialogue du ci du ci d'accord mm-hmm. kon moi je n'exclus rien je n'exclus rien loolu laa mas di wax dialogue bu njëkk ba ak bii laa yemale lépp loo xam ne day bloqué sénégalais yi d'accord nañ ko dindi loi beeg nanga mag ay nit a ko bindoon la loi électorale la mhm. la constitution ay nit a ko bindoon dañoo toogal a ngi bind ko en 1992 Assane. oui 92. 92 le code électoral de mhm. Mhm. mais boobu opposition Abdoulaye Wade opposition radicale la nekkoon. ak ñeneen ak ñeneen mais dañoo toog. discuter ci fana Ablaye daa on a discuté de tout avec grand T. vous vous on a discuté de tout donc lii itam man jàpp naa ne en tout cas sama point de vue sa ça ko que moi bu fekkee dañoo bëgg réew mi am am ci jàmm il faut lu bari ñu teg ko ci suuf. mais il sera d'accord sur ce point là président aussi du yàlla. mais machine bi ñu. du yàlla ah, d'ailleurs ci moom moo génne gémmiñam nañ jàll. waaw mais machine judiciaire bi ñu yëngal. déjà yooyu yëpp ci mais bii ñuy dugg ku ñëw ku génn sa yaay ay ba ba pare wax ko de manière ironique ne détenu politique amul. Euh, nañu positiver. te prison euh, yaa ngi. fes prison yooyu yëpp yooyu dama mais ci mois de mais bi déjà rek euh, Ousmane Sonko il a deux rendez-vous avec la avec la justice ci procès ak Mambay en appel ak ci procès ak ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Adji Sarr. Euh, moom moom nee na wax certainement il va wax na sax ba parler de tentative d'assassinat mhm. ci condition yooyu yëpp nga foog ne aussi dialogue mun na mun mun na am mais bu fekkee ne ñëpp d'accord nañ ci dialogue am pourquoi pas ñun ñëpp mënuñu d'accord ci dialogue

bu jàmm amee Sénégal mu bokk ci bu ci ay amee mu bokk ci. ak moom njabootam. ngeen yaakaar ni moom luy dox jàmm luy indi jàmm da koy bañ. d'accord ay jugul kenn.